di leen ziyaara bu baax a baax a baax te di leen ndokkeel ci àjjuma ji tabaarakallaahu ñëwaat noonu ak yéen ci suñu émission bi nu tuddee njàngaleem diine euh, di nuyu sunu auditeurs yi auditrices yëpp ñu doon ko seq ak émission bi ak euh, suñu mbokku Oustaz Moustapha Ndiaye euh, jombule dafa nekk ci yitte. waaye nu wuutu ko fi en attendant que euh, waxtu bi di di di ñëw dina dinañu fas yéene ànd ak euh, suñu mbokk Omar Mangassa ñu waxtaan ak moom ci lu jëm ci wàllu AVC incha allah euh, bu noppee ñu ànd ak yéen nag ci daara ji ginnaaw lu jiitu lool nag ñu nuyu suñu soppi yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo bokk daara ji yi ñuy ànd ak ñun di ñu wéttili ñu góor ak jigéen tabaarakallahu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ndax waxtu wi bu jotee ñu bëri dañuy ñëw di ànd di connecté wu di jaax di yokk ak ñun eh, ci xarala gi nag ki ci farewoo mooy Matar Samb ci digital bi ki ci farewoo mooy suñu jigéenu bopp eh, ajaratu maam Yacine Pouy macha allah su ko defee ñu xaar nit ñi ci 88. 628 14 14 bu ginnaaw bu ñu àndee ak suñu mbokk euh, Omar Mangassa Omar ñu ngi lay nuyu bu baax Omar. waaw ah, asalaamaaleykum ma lay fay oustaz. Omar naka def. alhamdulilah ñii fi oustaz yi. a coono yi. sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah alhamdulilah yaa ngi si jàmm bu baax a baax. waaw sant bu baax a baax barakallah. macha allah tey lan nga indil daara ji. waaw tey dañuy ñëw si wàllu alimentation ak hypertension. Mhm. hypertension artérielle parce que boo seetloo le 17 bi passé rek moom moo nekk bis bi ñu leen jagle lool. Mm-hmm. Euh, muy wàllu tension. macha allah euh, ñu ne woon nañ ci ñëw waxtaan si kenn laay deux minutes trois minutes rek. incha allah loolu nag dafa mel ni dafa am solo de ndax euh, jamono yi bari na ñoo xamante ne mënatuñoo dox normal tëddatuñu normal. tëdd ci kaw lal mënatuñoo lekk ñii seen gémmiñ yi déformé na ñii seen xar kanam yi. Euh, lépp lépp wàllu mën na lii ak alimentation rek buñ xoolaatee tuuti jikko yi rek ak li ñuy faral di lekk rek lépp incha allah mën na baax. waaw kon lépp ci lekk bi rek la dépendre. lépp mën na dépendre ci lekk bi waaw. est-ce que. incha allah lépp mën na dépendre ci lekk bi des fois dafa yenn activité tamit def sport tamit daf ñuy baaxaale yenn saa benn mbokk de nee na nee bëgg wér da ngay jël lii lii laam ak yaa. <laughs> dëgg la de. mooy xool li ngay lekk te yëngu. dëgg la dëgg la wala dëgg wala dëgg rek wala dëgg rek wala di sax. xaw ma nag xaw xam-xam la wax xalaat la nag. waaye daal ne ah. di xool li ngay lekk daal te yëngu. dëgg la da ah, xam-xam la. xam-xam la de di ko xool di ko xool bu rek ak yëngu. Ah. xam-xam la de wan dëgg de waaw wan a dëgg parce que lépp dafay dellu ci wàllu yaram toppatoo yaram bi rek waaw te te bu yàlla joxee yaram moom hmm. dafay am solo nga di ko toppatoo di ko bàyyi xel bu baax a baax waaw parce que am na ñoo xamante ni tamit eh, lu yàlla xam de la. Hmm. waaw tax lépp dafay dellu si taxawaay rek incha allah. Ah, alimentation bi lañ ñu jëkke ko. waaw ba tey tey dañuy ñëw si wàllu alimentation ak hypertension. Hmm. parce que boo seetloo alimentation mën na dépendre si ay yu hmm. nit ki parce que nit ki am yenn âge yi bu mag ak xale yenn saa yi duñ bokk nu faral di lekk wala lu faral di comporté mën na dépendre aussi si état physiologique nit ki. man na hmm. dépendre si activité am parce que yenn saa yi di nga gis nit ki activité yi muy def euh, sport wala liggéey bi muy liggéey hmm. lekk yi du faral di nekk à temps hmm. waaw mën na dépendre aussi si dëkk bi dëkk bi mu nekk parce que dëkk yi mën nañu wuute li ñuy lekkee mën na dépendre aussi tamit ci climat bi parce que bu seddee bu tàngee yenn saa yi lekk na faral di changé aussi tamit ci culture yi maanaam culture bu nekk ak façon bi muy lekkee mën na dépendre aussi tamit si habitude nit ki Mm-hmm. moo tax dafa am fi ñuy wax destination alimentaire maanaam jëmuwaay lekkukaay yi. Mm-hmm. ba tax boo boo boo lekkee rek automatiquement sa yaram dafa dafa am fu mu jëm si sa yaram. Mm-hmm. xel bi dafa am lu mu soxla yaram bi dafa am lu mu soxla cër bu nekk dafa am lu mu soxla si sa yaram. léegi bu fekkente ne nag xooloo li ngay lekk wala boog li ngay lekk toppatoo ko mu ëpp wala boog mu nekk déséquilibré toppatoo ko mën a dem ba indi lu ñuy wax les maladies de notre civilisation maanaam jàngoro yi nga xamante ni moo xew léegi. te bëri woon li ñu ko doon bu njëkk. lu si mel ni hypertension artérielle mm-hmm. mu nekk feebar boo xamante ne nii feebar bu bari la ci jamono mm-hmm. te mu lekk alimentation mm-hmm. ba tax bu ñu ko man bu ñu ko doon tënk si si gàttal moom mooy lan moom mooy deret bi ni muy ni dawee si suñu biir yaram dafa nekk lu am doole waaw léegi ñu mën si ñu mën ko mandargaal si ñaari valeur maanaam valeur bi nga xamante dafay yéeg mooy tension bi nga xam dafay yéeg muy systolique Mm-hmm. ak bi nga xamante dafay wàcce muy diastolique muy pression artérielle diastolique mm-hmm. mu nekk feebar boo xam ne feebar bu doy waar la parce que deret ji bu dawee ci dafa nekk loo xam dafa am doole mm-hmm. léegi nag am doole bi am doole nag di ko daw sa yaram nag dafa am nga xam dafa leen di lor bokk na si nga xam ne dafa leen dafa leen di lor boo xam ne dafa jéggi doole bu mën nga si jële ay feebar insuffisance rénale maanaam li nga xamante moom ok Omar ah, Omar orienté wul waaw orienté wul waaw orienté dafa mel ni régime lay daw waaw. waaw baax na waaw waxal ñu dégg waaw kay. baax na waaw ay bisimilah bisimilah. allo. waaw bisimilah bisimilah. léegi man mën na lool li nga xamante ne moom mooy moom mooy xol bi. Hmm. Ah, léegi léegi bu fe bu fekkante ne dafa dafa yàgg moo tax ñu koy oowee si la silencieuse maanaam mën na la rey te da du yëngu. léegi da da lay rey ndànk-ndànk. dalay ray dalay ray ndank ndank waaw dalay dalay ray ndank ndank te da da da lu yëngu léegi bu fekkante ne dafa nekk parce que dara ñu ngi dawte di yaram mu am doole léegi bu fekkante damay faral di yegg lu bari bu toll ay 15 10 wala 16 10 man dem ba indil ay jafé jafé ay jafé jafé parce que man man na dem ba du wone benn mandarga dina bu yàggee def noonu nag day dem ba yàq sidity dafa dem ba abîmer sidity daf koy rendre mauvais état ba dërëj li muy dayoon day dem ba commencé néewal doole si nit hmm. léegi nag bu fekkante ne nag tàmmoo di dem di xool sa tension wala ba xooloo li ngay lekkee mën na hmm. bindi la yenn jàngoro yi hmm. parce que hypertension facteur de risque maladie cardiovasculaire la mën nga si jëlee feebar bu ñuy wax accident vasculaire cérébral muy AVC mën si jëlee li ñuy wax insuffisance cardiaque ne moo tax nag moo wax feeb ak feebar yi demee noonu moo tax nag bu fekkente ne da nga am sa tension métti mu fekkee da nga nekk ci kaw la a hmm. mooy ñaari chiffres nga xam ne moo ko gën a intéressé ndax ëpp na wala ëppul hmm. noonu la ko organisation mondiale de la santé définir hmm. bu fekkente ne ne quatorze la quatorze mooy chiffre bi nga xamante ni mooy bu yéeg mooy deret bi ni muy dawee si système maximal bu yéegee noonu

waaw fi nga nekk baax dafa war a jógee mhm. léegi bu ko bu ko yokkee nag dafay gën di doy waar dafay gën di nekk zone rouge dafay gën di indi ay jafe-jafe léegi kooku la ñuy wax nit ku nekk la ñuy wax dafa kooku dafa nekk hypertendu maanaam kooku nekkatul koo xam nit ku dal lay doon mhm. bu mu am yenn jafe dafay nekk lu yomb lu si mel ni ay AVC ak ay insuffisance cardiaque macha allah ba tax na rek oustaz noonu la ñu indi woon comme tey si léegi léegi pour nit ki taxaw nekk ci douze nag jëm ci ay douze huit douze sept yooyu loolu lan moo ci lan moo gën ci moom mu di ko jëfandikoo xam comme douze mooy lu baax lay jëm treize. waaw mooy mooy ba léegi li gën faral def sport. Mhm. li faral mooy muy def sport te aussi tamit di xool lekkee surtout alimentation bi sax xorom maanaam lekk lekk daf koy wàññi. Mhm. lekk sax da koy wàññi ak produit yi nga xamante produit transformé maanaam ay chips ay pizza ay yenn boobu mooy yi nga xam dafa sax xorom. Mhm. parce xoolee suñu alimentation lépp boo xoolee produit yëpp dafa léegi dafa am xorom moom la ñuy wax xorom yi nëbbatu yi maanaam lay seen cachet. waaw euh, léegi nag yooyu yëpp dafa am ay xorom xorom bi moom la ñu woowee te xorom boobu nag boo xoolee un gramme au gramme boo jël rek hmm. un gramme de sel boo jël dafa am si si dafa de de de sodium ak quatre cent milligrammes de de color de sodium. Hmm. loolu ay xeetu xorom la yoo xamante dafa nekk ci biir ci biir alimentation yi ñu def ko ci tey nit xamuñu ko te duñ bàyyi xel. Hmm. nag nit ñi nag dafay dafay jaar nag dafay jaar ñu wax leen ko seen bu ko defee bu ñu jëndatee yenn rek ñu koy ñu koy ñu koy xel di bàyyi xel di xool xorom bi nekk ci biir. macha allah. kon daal hmm? loolu moom jar na bàyyi xel. mais mais xale yi ni xale yi xale ñuy gis nag ñuy jël façon lekk yooyu nga xamante ne bi day saf xorom ñoo ñooñu tension du leen du leen du leen wàññi dara daa. Ah. waaw parce parce parce que boo xoolee ya, tension tension di mën na leen wàññi dara que mën na leen bañ a wàññi dara parce que bu fekkente ne da nga nekk xale teel am tension muy faral di yéeg yéeg bu bëri boobu da nga màgguwaale ka. mën na dem au fur et à mesure li ngay li ngay gën di jëm ak mën na dem ba indi la yenn jafe-jafe yi. pour nga pour nga am yenn feebar yi dafay dafay yomb moo tax rek ñu bàyyi xel xale yi. leen bàyyi xel di xool bu baax a baax li ñuy lekk surtout seen wàllu alimentation li koy xel. di leen nemmeeku tamit ñuy faral def sport tux tamit bokk na si li nga xamante ni baaxu si parce eh, que surtout ñi nga xam dañuy tux parce que bu fekkee da nga yàgg di tuxit mën a dem dafay indi ay plaque si wala affaire yi maanaam si tuuti lay commencé def ay yenn jafe-jafe ay yenn ñu ngi la si def ay plaque ay da ngay mel di koy xaw di fàtte bokk la jafe-jafe yi nga xamante moom lay def ci poumon yi. bokk la jafe-jafe ni moom si poumon yi aussi tamit ba nga bu fekkee da nga nekk am nekk nit ku am yaram. bu fekkee da nga nekk nit ku am yaram rek kay faral di def sport aussi tamit di bàyyi xel bu baax a baax sa wala alimentaire parce que graisse bi nga xamante moom moo nekk si yaram graisse boobu bu yàggee di nekk sa yaram rek. dafay dem ba commencé indi yenn jafe-jafe yi mën na dem ba indi la les maladies les maladies cardiovasculaires mën na ko indi. lu ci mel obésité yooyu mën def koy indi. macha allah rek ñuy bàyyi xel bu baax a baax li ñuy lekk. kon daal ni ni ni ñu war a toppatoo toppatooyee julli noonu la ñu war a toppatoo li nuy lekk. dëgg la. di ko di ko sàmm itam sunu yaram. di ko sàmm suñu yaram. macha allah jërëjëf jërëjëf macha allah. <laughs> baanu saa jërëjëf ñu ngi lay santati bu baax ñu ngi lay santati bu baax a baax. <laughs> alhamdulilah jërëjëf. jazakumullah na xeeran baax na jërëjëf ñu ngi bég bu baax ci suñu mbokk bi ñu àndoon Omar Mangassa ñu ngi koy kontaane bu baax a baax yal na yàlla fay ko yiw parce que tamit loolu muy wax noonu day dimbalee nit ñu bëri ci ci ci lu mel noonu parce que tamit euh, wér loo ko jëndee rek jar ko loo jëndee rek jar ko macha allah kon ñu xaar nit ñi ci 88 628 14 14 ci koo xamante ni kii am na lu mu bëgg a leerlu ci wàllu wàllu diineem. Euh, ñu mën ko ci leerlu mais laata loolu ñu gërëm nag bu baax a baax suñu euh, mbokk yi nga xamante ni bi ñooy waa ànd sàmm jikko yi ci taxawaay yi nga xamante ni bi def nañ ko ci euh, xeex bi ñuy xeex mbiru góor jigéen ci réew mi te def ci ndaje mu rëy rëy rëy rëy bërki dem ba ci ci Lebesque bi ci le 23 bi yal na yàlla fay leen yiw mbooloo ma bari na organisation ba rafet na wante teewaay ba tamit yaatu na li am solo mooy ñu ñu jëmmal ko te mooy euh, ñun ñëpp ñu àndandoo ci loolu bañ ko bañ ko taxaw ci te soutenir lak sunu mbokk yooyu nga xamante ne bii ñu nga cay ñu nga cay ne euh, boo songee lu bon menace dina jóge fu nekk waaye nag yàlla moom du jeex te du jeexal yàlla du jeex te du jeexal su ko defee ñu xaar mbokk yi ci 88 628 14 14. Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum ok sang. oustaz ñu ngi sant yàlla bu baax tur bi naka la. Ah, ya euh, Aliou kooku dafa mel ni déggante woon moom xam naa ñu xaar keneen ci 88 628 14 14 su ko defee ñu mën a ànd ak ñi nga xamante ni bii ñoo bëgg am lu ñu leerlu ci seen mbiru diine di nuyu nag mbooleem yu nga xamante ni bii. Euh, ñu ngi ànd ak ñun euh, ci ci ci daara ji incha allah ñoom euh, ku mel ni Adja Seynabou Sarr ku mel ni madame juuf ku mel ni Adja Ngoni Diop tabarakallahu ñoom ñëpp ñu nuyu leen di nuyu madame sàll sama <laughs> ndeysaan ñu nuyu ko baax salaamaaleykum wa rahmatulah waaw. salaamaaleykum. waaw Oustaz Oumar laa waaw moom ngay waxal ni macha allah. waaw allo Umar. waaw waaw kooku. Thiam. kooku. allo Umar. waaw kooku. maa sa yaay seeni. ah sama yaay seeni. waaw Diop. Diop Diop Diop Diop naka waa xuma waa Njaañ. waay Thiam Thiam waa kay Diop Diop Diop macha allah. waay waay gisaa mu la allah. isaakum laahu xayran jazaak jërëjëf Diop jërëjëf yal na yàlla fay barakallah fiikum macha allah alhamdulilah ndeysaan ñi ngi bég bu baax a baax kooku sunu woy jur la euh, di ko ziyaara di nuyu waa njànge yëpp di leen ziyaar macha allah di kontaan bu baax a baax nag ci duggam di ko ñaanal yàlla di sàkku ci ñoom itamit ñu ñaanal nu yàlla noonu la ñuy nuyoo suñu déjà Amadou Mokhtar Diop xam naa ni moom bu ñu jàppee day jàpp ci nopp bi rek <laughs> waaye 88 628 14 14 ci la ñuy ànd ak yéen incha allahu taala ci ci daara ji macha allah euh, bu fekkee kenn naa ngi si ligne bi ñu jël ko 88 628 14 14 bu fekkee kenn na ngi fi rek euh, ñu xool ko. ànd ak yéen ci ci daara ji eh, rek eh, ndax loolu mooy mooy mbir mi eh, ci wàllu laaj yeeg tontu yeeg macha allah waaw kii de dafa yónnee benn benn benn waaw kii nuyoo la nuyoo la macha allah ci 88 628 14 14 la ñuy ànd ak yéen incha allahu taala su kenn ñëwee rek ñu jël ko Aliou ñu fas yéene ànd ak nit ñi rek ci ci loolu. ñu bëgg leerlu suñu diine ñu mën ci luñ ci xam ñu leeral ko incha allahu taala niñ ko daan waxee macha allah euh, di respecté ñëpp rek di leen nuyu di leen ziyaara bu baax a baax 88 628 14 14 mooy bunt bi ñuy àndeek yéen ci ku ci jaar rek ñu ànd ak moom ci daara ji incha allahu taala waaw li ma doon wax léegi rek mooy euh, ñu rafetlu.

mbiru mbiru mbiru ku baax ku ne loolu la ñuy xaar ci yow macha allah di ziar bu baax euh, suñu sopp yi nga xamante ni bii ñu ngi ànd ak ñun ci daara ji euh, di leen wettali ko ci vingt 628 14 14 bu fekkee am na kenn ku nekk ci ligne bi Aliou ñu xool ko bu kenn nekkee ci ligne bi ñu jël ko bu soobee yàlla euh, ànd ak ñoom rek ci ci daara ji macha allah ndeysaan nit day moom war na xam mm-hmm.

rek euh, bokk ak ñi nga xamante ni bi ñoom la ko war a bokkal waxtaanandoo ko ak ñoom su ko defee ñu mën ko waxtaane incha allahu taala su ko defee loolu mooy euh, moom la ñuy xaar ci nit ñi ku ñëw rek dugg ci 88 628 14 14 moom la ñuy xaarante incha allahu taala ci euh, ku ñëw rek ñu mën a ànd ak moom ci loolu macha allah ñëw rek ñu bokk ñoom. laaj suñu diine xam ci liñ ciy tontu euh, bu ñu ko bëggee jëfandikoo mu nekk lu lu am njariñ xamante ni bi dañ ciy dajeeg ngërëmu yàlla xam itam lu ñuy wax fan lañ koy teg ak naka lañ koy tegee incha allah loolu ci la ñuy xaar nit ñi ci vingt 88 628 14 14 incha allah su ko defee ñu mën a bisimilah salaamaaleykum. waaleykum salaam. ok sang. oustaz ñu ngi lay ziar la koy delloo bu baax tur bi. ko la soppaloon nag ah da nga koy rek bu baax a baax. aywa alhamdulilah macha allah sopp nañ leen ñun tamit. waaye ku la soppala wallahi azim su la waxoon say at suñuy at sax nga waaroo. ay xale yu ndaw la waaye dañuy diglu jamono ju ne. jazakum laana xeeran. waaw teel a bëgg sun diine rek teel a bëgg lu baax. parce foofu ci xale la ko yàlla gën a soxlaa. wallaay dëgg la wallaay dëgg la dañu wax ne yonent bi kay moom ba mu nekkee xale waaw macha allah moo taxee ñun dañuy xool ci di joroy bu baax a a baax. est-ce que aussi comme ni ñu daan déggee rek sunu mag mu baax mi Serigne Touba ñu di ba muy dégg ñu ne xale yi dina mag ñu baax ñi dañ daan daan taxaw ay guddi dinaa fi la boobu muy am ay at néew moom tamit mu koy def. Mm-hmm. ñoo tax ñu ni naan roy ci loolu rek ndax euh, ñu mën a am euh, ngërëmal yàlla bu baax a baax. alhamdulilah rabbil alamin waaye yàlla na yàlla bari ñu mel ni yow waay. amiin biir waaye moo taxoon ñu bëggoon a xam nag euh, maanaam limu naafile bi gën euh, yi nga xam ne daal di waa sopp nañ ko ci maanaam limu naafile yi mm-hmm. siifir yi mm-hmm. waaw comme maanaam fukki raak ak benn nga yëpp baax na waaye am na si lim koo xam comme ça daan gis ñu dégg ñu ni mag ñi xalaat daanaan ko def wala lu am solo insha allahu taala bëgg ngeen baax baarakallah bu soobee yàlla insha allah ngi ngi ñu bu baax a baax macha allah alhamdulilah jazakumullah na ndeysaan euh, ñi ngi bëgg bu baax di kontaan ci mbokk moomu le euh, noonu la de xale day bëgg diine xale dafay bëgg diine euh, gis nga yi yi yi ñu bari daw daw daw jubali nii yooyu dana dana jeex ba noppi dund des te bu doole jeexee dundu des dafay nekk lu doy waar ndax yàlla itam nag jëf yi lay lay lay xool jaam yi ci jëf yi ci la yàlla di xool jaam yi ci la leen di àtte moo tax góor góorlu ci li nga mën ci lu baax lu am solo la bu ñu déggee mbokk bi nii yaa ngi gis ne moom li muy laaj ci naafi la la naafila mooy lu nga xamante ni bi kii laaj la laajul leneen naafi eh, naafila lay laaj ndax eh, sunu boroom subhaanahu wa taala eh, li mu ko sant ma nga ca muy laaj yi nga xamante ni bii moo ko war a def te dolli ko ci yële nga xamante ni bii moom moo moom moo moo nekk ca kawam naafila nag am na yu nga xamante ni yu am doole la ah bisimilah bisimilah. salaamaaleykum tulla. aleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Mor Thiam maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi la koy delloo bu baax a baax macha allah. jëwinati leen. alhamdulilah ñu ngi delloo leen macha allah. de euh, sama euh, benn mbokk la. Mhm. Babacar Sow bari pël. ok Babacar Sow sama waa ji. <laughs> xanaa géej gi dégganti lool lool lool lool dégg la Babacar. waaw li tax maanaam bariwul sax li ma lay woo maanaam émission bi dama koy topp rek di déglu. dégg la dégg la Babacar. wallahi ñu ngi lay siyaar bu baax. ñu ngi leen koy delloo bu baax a baax macha allah. waaw dafa am benn laaj may laaj. Mm, bisimilah Babacar. benn waaye ngi nii. Mm-hmm. waroon julli suba teel fekk jamono jooju dafa nekk ci xat-xat. dafa waroon julli suba. waaw maanaam mu nekk ci oto daal maanaam. maanaam mooy wax maanaam bu fekkee wàcc na mu julli faal mu fàcc ko ba ci suba sa ba ci ba ci suba sa ca waxtu suba sa ca ëllëg sa. léegi nag muy laaj muy def maanaam jamono ji moom ko fàttali ko ba war a julli wala dafay war a julli waat julli yi mu romboon wala dafay war a julli suba teel gi rek. baax na incha allah. waaw loolu la. jazakumullah ñu ngi bég bu baax a baax macha allah. incha allah ñu xaar keneen ci ci ligne bi incha allah. tabaarakallahu 88 628 14 14 incha allah ci yooyu la ñuy àndanteeg ñi nga xamante ni bii ñu ngi ñu ngi ànd ak ñun euh, mbokk bi ma doon wax léegi ci ci ci naafila bi euh, naafila euh, macha allah dafa am yoo xamante ni bii ci bu dee ci wàllu julli. naafila ci wàllu julli parce que am na yeneen naafila yu nga xamante ni bii du du du julli euh, mooy yeneen yu baax yi ñuy def waaye bu dee naafila ci julli am na bu ñuy tuddee achafon mooy chafa euh, ak witar ci naafile la ñu bokk al idaani mooy tabaski korite yi ci naafile yi la bokk euh, witar ci ci ci la bokk donc kon loolu ci naafile yi la bu fekkente ni bi nag yeneen yi nga xamante ni bi mooy sës ci julli yi lu mel ni ñaari rakkaay fajar Eh, ci la bokk ñaari rakka ginnaaw tisbaar avant ak ñaari rakka ginnaaw tàkk tisbaar ñaari rakka gannaaw euh, avant saan ñaari rakka après euh, timis eh, ñaari rakka ginnaaw gée yooyu boo ko limee dana dem ci fukk ak benn am na ñenn ñoo xamante ne danañu dem ba def ko fukk ak ñett waaye àla kulli xaal boo gisee yonent bi bàyyi ko noonu dafa bëgg rek kenn ku ci nekk la nga tollool nga def ko mu bañ a nekk lu diis ci yow waaye ku mën yooyu mu wax noonu ñaari rakka balaa fa balaa balaa suba muy raxiba yi fajar bi ba noppee nga ñaari rakka avant tisbaar ak après tisbaar avant takkusaan après timis avant gée après gée yooyu boo calculer dina la yóbbu fukki rakka ak benn wala fukki rakka ak ñett su ko defee yooyu boo ko mënee def ci bis bi alhamdulilah rabbil alamin nga séparé ko noonu bo am na ci yeneen nag yoo xamante ne bii nit mën na ko def mu tudd naafila muy lu mel nii muy lu muy lu mel nii julli yoor-yoor muy julli yoor-yoor euh, yooyu tamit ci ci naafila yi la bokk euh, ci yu ñu mën a yu ñu mën a def la bokk kon nag mu ngi noonu. yàlla nañ ci yàlla defal ndimbalam parce que koo gis muy sonn ci koo gis muy sonn ci naafi euh, euh, naafila dafa war a fekk ni pare na pare na ci julli farataam dafa war a fekk ne pare na ci julli farataam kuy sonn ci naafila rek na fekk ne pare na ci julli farataam kon nag mu ngi noonu alhamdulillah loolu moo jar a sonne boo sonnee sa farata ba noppi léegi nag nga doogaa ñëw ci sa julli lii sa julli naafila parce que farata ginnaaw nafila lay nekk eh, umra ñaara ginnaaw aj lay nekk gunge koor day ñëw nekk ginnaaw ginnaaw loolu kon nag mu ngi noonu eh, mbokk bi nga xamante ni bii dafay laaj ne moom day eh, yàlla nattu woon na ko mu fàtte mu fàtte benn julli mooy fàtte benn julli ba fàttaliku ko li ci yonent bi waxoon man nasiya salaatan aw naama anha fa kafaratuha an yusalliha ida dakaraha Euh, loolu rek mooy boo ko fàttalikoo nga daal di koy nga daal di koy julli léegi nag mu des nag yeneen yu nga xamante ne bi boroom xam-xam yi dugal nañ ko ci ndax dafa bokk ci yasirul fa fawaait wala yu demee noonu wante comme juróomi julli la euh, fàttaliku nga ni julliw ma woon suba barki démb wala démb julliw ma woon suba julli yi ci des yëpp julli nga leen kon da ngay daal dem julli suba boobu rek mu noppal la incha allah des na nag yeneen détails yu nga xamante ni bi dañ koy tuddee euh, xadaawul fawaid détails ya ci yu aju yëpp macha allah 88 628 14 14 incha allah waaye ñu xaar ñeneen ñi ci. salaamaaleykum aleykum salaam wa barakaatu. bu baax a baax. ñu ngi la koy delloo bu baax a baax. Mhm. waaw man euh, damay def faral di def na su ma jàppee di def dog rek damay julli ñaari ràkk door a def dog bi heure bu mu mënta nekk nag <laughs> léegi ma doon laajte ndax est-ce que am na heure yoo xam ne waroo koo def wala ko def hmm, incha allah man koy daal toog war a def benn dog hmm. damay julli ñaari ràkk door a toog waaw kay incha allah heure bu mënta dama hmm. koy def ma laaj ndax heure yëpp la ñuy julli ñaari wala baax na incha allah dinañ ci dinañ ci ñëw léegi incha allah waaw ñu ngi ñu ngi bég bu baax ci ci ci ci mbokk boobule ci li nga xamante ni moom la moom la laaj léegi euh, ki nga xam ne dafa war a def ay naafila ay dog la dafa am heure yoo xamante ni bu ñu sañoon nag dañuy xaar ba heure yooyu passé ñu doog a julli heure yooyu bu ñu sañoon dañuy xaar ba mu passé ñu doog a julli mooy ban mooy diggante fi ñu jullee suba fi ñu jullee suba te jant bi génnagul bu ñu sañoon dañuy bàyyi ba jant bi génn ba pare diggante tàkkusaan bi ak timis bi diggante boobu dañuy bëgg ku doon julli bu dul julli farata walla bor booy fay nga nga bàyyi ba ba mu jot ba foofu weesu nga doog nga doog def loolu kon mu ngi noonu loolu mooy li nga xamante ni bi moom nga waroon def bu dee mais du caagee ni waxtu wu la neex rek nga daal di daal di ñëw rek daal di julli déedéet mais am na waxtu yoo xamante ni bi bu ñu sañoon kenn du fa naafi la mooy lu mel ni ñaari waxtu yooyu ma la wax noonu julli nañu baar ba pare diggante foofu ak tàkkusaan mën nga fa naafi la mais julli nañu tàkkusaan diggante foofu ak timis déedéet bàyyil ba ñu julli timis ba pare boo bëggee la mën nga naafila bu dee diggante boobu nga bëgg a euh, la nag nga bëgg a def say zikkar mën nga def say zikkar noonu rek dawal sa yéene euh, daal di commencé def say zikkar mais nga bañ a julli loolu moom mooy mooy mooy li ci gën a lii mu ngi noonu alhamdulillah euh, su ko defee mu ngi noonu 88 628 14 14 ci la ñuy àndeeg yéen incha allah ñu ñëw ci bu ñu amee keneen ñu jël ko incha allah. Mm-hmm.

maa ngi maa ngi sant yàlla baax yow ñaanal yàlla defal la sutura àdduna ak alaaxira ak wér gu yàlla ko yàlla defal jaay. te di fay la ñu ñëpp yàlla yàlla yow Sarr. waaw kay. ndax ki nga xam ne day wàññi julli def safa witr daf koy war. alhamdulilah. jazakumullahu xeeran. baarakallah macha allah ñu ngi bég ci Oustaz Abdou Karim boobu di ko ziar bu baax. di kontaan ci moom waaw xam nga eh, dañu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na safa witar fonk goo xamante ne bi mësu koo bàyyi mësu koo bàyyi bu nekkee ci tukki walla mu nekk ci budul tukki da daan def bu tukkee kon xam nga ni kon tukki da daan wàññi wàññi ba terewu ko woon mu daan def safa witar eh, ñaax na ñaaxaate yu bëree bëree bëri bëri ci ci euh, safa witar ndax euh, la ca nekk ci ay tuyaabaak ngëneel ak lépp loolu moo tax tukki daawul tax mu bàyyi ko nekk ci dëkk bi daawul tax mu bàyyi ko te koy woote ne dama ko sopp nag loolu war na tax nga gën ko mën a bàyyi xel di di ko dundal boo tukkee nga def sa safa witar nga wàññi def sa safa witar waaw safa witar yi tamit la ca gën mooy du sa tàkkiwul ne rek dama ko war a bàyyi mu mu mu mu ñëw ma sës ko ci gée gi déedéet safa witar mën nga julli gée par exemple vingt et une ci misaal mais safa witar bi nga dem def ko quatre heures du matin cinq heures du matin parce que heure bi ñu koy def mooy ginnaaw gée ba fa jar loolu la ginnaaw gée ba fa jar bu dee da ngaa tukki nga sonn nga julli gée bi dem dallu boo dalloo ba quatre heures du matin cinq heures du matin nga jóg def sa sa def sa safa witar kon mu ngi noonu witar laa bëgg wax nga def sa witar incha allahu taala te du ñoo bëgg boo koy def nga nga tof nga jiital ñaari rakka doog ko ciy teg muy muy bu bu tóol bi incha allah kon mu ngi noonu bu fekkee nag yow wóor na ni boo tëddee doo doo doo yeewu da ngay continuer di nelaw su boobaa nag nga sasal ko ci géej gi mooy gën. te euh, boo ko sësalee ci géej gi du la tere boo yeewoo ci guddi gi nga bëgg a defaat beneen jàmm yàlla ci julli du la ko teree defaat du la ko teree defaat mais dootoo defaat witar ndax witar benn yoon rek lay am par guddi soo ko defee wàcc na la soo ko defee wàcc na la loo defaat ci guddi gi du tere nga mën defaat witar waaye jàppal ni daal yonent bi mosu ko bàyyi sallallahu alayhi wa sallam ci bu nekkee ci dëkk bi wala mu tukki ku koy roy nag mën nga ko roy ci boobu. donc soo ko deful tamit wàññiwul dara soo ko deful wàññiwul dara mais perte nga tuyaaba bu réeréy nag perte nga tuyaaba bu réeréy parce que lu nga xam ne yonent bi léppam yàlla assuréel na ko ko moom mu dem ca ba yàlla di ko euh, euh, assuréel ko yu bari moom mu dem ba mënu koo bàyyi ndax di ko bëgg tuyaaba kon ku ko topp da di bëgg tuyaaba waaye loolu ma la ci wax moo ci nekk mooy waxtu bi ñu koy def mooy entre gée ak fajar ba euh, la ca gën ñu def ko ko mooy ñu def ko ci mujj guddi gi bu fekkente ni biir boo nelawee doo yeewu def ko ci commencement guddi bi soo ko defee benn yoon dootoo ko defaat beneen yoon ci guddi bi te du yàq li nga bëgg a defaat ci guddi gi waaw kay mu ngi noonu 88 628 14 14 incha